Salut les amis de eSport TV, merci encore gars, la confiance de nous voler, merci de louer des likes, merci de abonné, merci également d'y baisser des commentaires. Un plaisir renouveau les gars, chaque fois de partager des l'information en box sénégalais fait pour les maintenir 14 régions du Sénégal. À nos World Cup, nous avons dit ñu nekk également ci l'hôpital et sécurité de février, nous sommes borom fëgg seen bop ñu rek jam. Ñu nekk ci kasse nga xamné aussi erreur judiciaire ñi ñu lañu def mënu fa suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu delluwaat doona suñu borom xaar leen àjjana firdawsi gaay te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de e-sport TV l'actualité en continu actualité ñu fas yéene ki kii di Mori Diaw ak Yehvan Diouf ñu di tànn ci meilleur gardien première partie Ligue 1 française ak également ki di Formose Mendy bokku ci meilleur défenseur ya nek ci Ligue 2 française gay yi loolu la day leeral mais d'abord, ben parenthèse ci wa NBA avec ki nga xam Nikola Jokic bi nga xamné ne ci goudi gi manam def na lu exceptionnel 36 points 12 rebonds ak 10 le défenseur, hein, le MVP des Denver qui est MVP de la nuit également Ñet ñii ni ñi ki ay Pep Guardiola lañ muy kan di également Arteta ak également ki di Burnley ak leur entre leur entraîneur actuellement xam ko compagnie ñi ñoo leader de leur championnat donc mu Espagne mu également ci championship ak aussi ci donc Premier League ki di Kylian Mbappé Real de Madrid et que Aqua donc euh, ak kii di donc Kylian Mbappé ak entourage am Memphis Depay donc waa Atlético de Madrid ñoom nee nañ wu ñu génnee benn euro bi gën a ndaw un million d'euros sax neen duñ ko génnee pour daal di jënd ki nga xam ne mooy li ñuy fas def daal mooy bàyyi ba mu saison bi jeex mu dem librement ñu soog jël pendant ce temps ki nga xam ne mooy donc Yannick Carrasco waa Atlético Madrid nee nañ bu fekkee ne waa Barça dañ ko bëgg a jënd il faut ñu teg ci table bi 60 millions d'euros 60 millions d'euros lañ ne waa Barça boo leen bëggee jënd Yannick Carrasco foog ngeen teg ko ci table bi gars yi fi nii daal waa Atlético daal ñoom daal ñu ngi daal di chantage waa Barça un ancien joueur de l'Atlético et du Barça di kii di Luis Suarez ah moom Grêmio la nekk ci Brésil il a marqué un triplé Luis Suarez nee na ravi de revenir sur le terrain kontaan de soit ci terrain bi wane waat sa mën mën Luis Suarez ah gis ngeen ko le Pichichi de Espanha. kii nag di Oliver Kahn Oliver Kahn nee na blessure bu Manuel Neuer nekkul loo xam lu garaaw garaaw parce que ki nga il il mooy defoon première partie saison bi ba mu blessé ba léegi mi ngi def ay match yu baax a baax a baax il est satisfait donc y' a pas d' inquiétude à avoir même bu fekkee ne Bayern mi ngi daal di pousse pour daal di recruter kii di Yann Sommer le gardien de Borussia Mönchengladbach actuellement nañ déggoo sax am na ci autour de huit millions ak ay bonus mais nag mais nag attention parce que Borussia Mönchengladbach ñoom li ñu wax mooy ne dañoo dig waa Bayern Dominique ne ñoom dinañ leen leen jaay ki nga xam ne Vous Yann Sommer bu fekkee ne nañ le gardien Jonas donc euh, gardien de Montpellier bu fekkee dans le jour bi ñëw na dinañ leen mën a jaay ki nga xam mooy Yann Sommer mais waa ñëwul fas yéene leen jaay kii di Yann Sommer donc loolu rek moo tax mbir yi daal di xaw a euh, tàggatémbe jamono euh, ji jëm ci li nga xam ne également mooy meilleur buteur coup franc de l'histoire de la Premier League David Beckham nekk ci kaw top ci également James Ward-Prowse Cristiano Ronaldo Gianfranco Zola Thierry Henry ñooy meilleur tireur de coup franc de l'histoire de la Premier League et que ki nga moy ne Warcroft gars yi ñaari but rek ko dese mu daal di égali recordu David Beckham ki ngeen gis nak di Modric euh, première séance d'entraînement avec ak euh, Chelsea les Blues de Chelsea de Khalid Koulibaly et de Edouard Ndiol Koumbambi Dogore Mendy bi nga xamne ba légui dafa blessé maintenant nag gars yi ñi bëggoon xam lan moo tax Modric daal di dem ci Arsenal demul ci Chelsea yomb na ñoom ñaar ñep gars yi ñoo def même proposition 70 millions la ak 30 millions de bonus mais différence moy que ne payor gi ni mu gën a Chelsea ñoo proposé te payoor gu gëna gaaw ñi nga xam nak moy équipe bi donc ancien club am Shakhtar daal di nangu jaay ko ñi di waa Blues de Chelsea match en retard septième journée de la Premier League diggante Crystal Palace ak Manchester United lay doon les ñe yi nga xam nak nag gars am nañ chance yek ba nek sax ci trois premiers du classement donc Manchester United bi joué donc match retardam digganteem ak Crystal Palace et le retour de Jadon Sancho mi nga xam dafa blessé woon amoon problème physique reprendre na il devrait être de retour aujourd'hui ou plutôt cette semaine donc être le match de 21h mais bu joué wul tey semaine bi mën na le soir qui est di Jadon Sancho super coupe d'Italie entre nga l'Inter de Milan et le Milan AC le duel le derby milanais entre ces deux équipes kan quoi koy gagner en tout cas match bu nar a neex la doon et que benn média français du ko seetaan donc gars yi ko bëgg a seetaan jàpp leen ko ci média italien wala bokk ci yeneen chaîne yi nga xam mooy Sport entre autres ki nga xam ne mooy Allegri le président donc de ñii di waa Juventus de Turin moom arrêté na foofu noonu te du côté de la Juve donc moom mi nga xam ne 2010 il y a eu des hauts et des bas moom moo nekkoon procureur, li nga xam ne donc super ligue bi les gardiens de la mi-saison meilleur gardien ci 11 bi nga xam ne mi-saison bi ci ligue 2, ligue saint française je dirais ki nga xam ne donc également yevan Diouf ñoom ñaar ils font partie ci gardiens yi ñu tànn aux côtés de Donnarumma entre autres ak Lopez bu euh, Marseille ki nga xam ne nag Diaw il est en train de faire une saison exceptionnelle wax naa leen mu ëpp ay arrêt décisif yi mu def ci championnat bu mu dooree ba léegi keroog nag match contre Angers Il leen en train de ñoo plutôt 2 buts à 1 il a encore fait un match époustouflant. Moridiao, statistique Mingini, il a empêché 6,2 d'occasion il xam Il annulé xam mënoon de dougou sur les dans les cages de Clermont Tarna, actuellement King nga Moridiao, beaucoup n'est-il le meilleur gardien actuellement de la Ligue 1 française club Yumagamagisan, il a commencé recruter que ce soit également en Premier League à yeneen championnat le longiline gardien de Clermont ñi ngi wax ne aussi am na club yu mag a mag yu nekk ci Ligue 1 française yu ko bëgg en tout cas Mory Diaw bokk na donc ci li nga xam ne mooy joueur plébiscité et tout à l'heure gars vidéo bi jeexee dem nañ ci suuf di ngeen gis ci kaw sax di ngeen gis ma def lien bi pour ñu bëgg a supporter sénégalais ngeen dugg ci lien bi inscrire bu fekkee am ngeen code ngeen daal di am mot de passe ba pare ngeen dugg daal di mën a voter pour seeni gaynde yi ki nga xam ne nag mooy Diouf également le gardien de Reims aussi il est en train de faire une saison exceptionnelle moom mi prolongé contrat ba 2024 Yevan Diouf donc franco-sénégalais actuellement il peut peut jouer pour le Sénégal il peut jouer pour la France de décision mais c'est un gardien excellent Mohamed, comme ki nga xam à suivre aussi qui dit, Yévan Diouf et que dire de Formose Mendy Formose Mendy il est fort c'est défenseur il y a ko wax avant mooy équipe nationale A Len Boybini, il y a nii ko suivre même bu fekkee ne directement mais c'est un joueur exceptionnel Il y la wax également défensivement Axel la jouer axe pas latéral et qu'il est en train de le prouver. Mon Miguel actuellement il est le meilleur défenseur je précise le meilleur défenseur de la Ligue 2 française de Kenan Kudul, Formos Mendy Épreuve à la pigaille, parce que le wax dañu jox ay preuve statistiques voici les statistiques de Formos Mendy regardez Formos Mendy mon hein. est donc Tikao, le n'est dans le top 10 de meilleurs défenseurs il est premier suivi également de Operi, Mon Mon nga Mendy également gis il est courtisé par plusieurs euh, joueurs et plusieurs équipes plutôt mais également une yi nga a ne ñoo balle Ligue 2 cette saison Calmone moo nekkaat ci kaw de Formose Mendy avec gars 41 balles interceptées 41 interceptions de Formose Mendy qui ci topp nag du keneen ku dul Saad défenseur bu socho également nga actuellement il est courtisé par les plus grands clubs d'Angleterre, notamment par West Ham, Dico Gustou, qui dit Formose menu le défenseur sénégalais, passé par l'équipe nationale du Sénégal dans la petite catégorie de l'équipe nationale du Abi. Guys, c'était les informations que je voulais vous donner. Toujours un plaisir de vous servir. the like, oui Wayland abonnez abonné. On avance ensemble dans la magie de eSport TV. Demain Khol, lien def pour Moridia ou pour Yavan Diouf. On avance ensemble.